dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw ñu daal di door ak yéen rek ci xibaar yi mbokk internet info 221 njiité réew mi Bassirou Diomaye Faye nag dinañ ko bu nekk fii ci Afrique visite boobee sax dafay dem ngir saafonteeg njiit ga nga xamante ne moom moo fa nekk rek fale ca Freetown du capital bu Sierra Leone visite la boo xam ne visite xaritoo diiru ñaari fan maanaam 24 heures rek la fay diire ci buuru visite boobee njiité réew mi Bassirou Diomaye Faye dina taseeg naataangoom bi di Julius Maada Woni Bio nag ñu waxtaane ci lu bëri jëm ci ay ponk yoo xam ne daal daal dinañ ko ko ci ñaari réew yi rek dëgg yi nga xamante ne rek Seydi Gassama daal dina ko fësal ci fonctionnaire yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon ginnaaw nag ba fi nguur gi fi nekk ne woon ne képp koo xam ne mosoon nga yor ab woto ñu jébaloon la ko ñu ngi lay sàkku nga delloo ko ndax dañ ko bëgg a ñi fa nekkoon secrétaire exécutif bu Amnesty International national section Sénégal Seydi Gassama desul benn yoon ci ginnaaw mi ngi wone rek ni eh, ci fonctionnaire yooyee nañu lànk ñi bañ na duñu joxe woto yooyee tëgguñu ko fenn ci yoon nañu sàmm seeni ngor rek te xam ne ginnaaw bañ leen ko joxe ngir liggéeyal na woon buñ fi nekkatul nañ ko jébbal ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fa wutu kër gi nga xam ne moom moo ko dañ la ko joxoon ak woto ak lépp lu jëm ci passeport diplomatique ci fonction bi nga fi nekkoon te nekkatoo ci danga ko war a jébbal ab fàttali sax nag ginnaaw ba président Macky Sall demee régime bu bees bi nag dafa ñëw dàkkal lépp li nga xamante ne gumunaan dat la woon ak rataan lu mbéy nga xam ne jonk nañ ko nemmeeku Seydi Gassama di woon nag ñooñee ñu bàyyi seen i caaxaani delloo lépp lu luñ leen jébbaloon ndax ñu mun koo jox nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen fa wutu jamono jii ndaxte lu nu mel bokk na ci li nga xamante ne sax mooy gën a yàq suñu alal ndaxte woto yooyu waruñ ko sànni sax wala di ko ko bàyyee dañu leen ko war a jébbala wàllum xibaar bokk na ba tey nag ñii di waa impôt domaine nag benn yoon de ginnaaw ba ñu bloqué compte bancaire bu Madiambal Diagne ji groupe bu muy téye waawal fajri ak waa RTS ñoom it jot nañ ñeenti tudd ci ñoom it waaye nag ginnaaw direction générale des impôts et des na jot na lancé nag benn série redressement fiscal jëmale ko ci média yi nga xamante ni ñoom la ñu concerné groupe avenir communication di yéenekaay bi nga xam ne jambal Diagne ma ko jiite faj fajri tamit bi Sidi Niass moom ma doomam di ko jiite DG yi nag ñoom jot nañu nee na bloqué nañ nag compte yi nga xamante ni moom la ñu daal di ci defaru Youssou Ndour bokk na ca groupe bokk na ci bu uh, Bougane Gueye uh, loole sax mu ni sax nag mbir mi dafay gën a tàmbali bokk na tamit ci 7TV képp koo xamante ni rek tudd nañ la uh, dinañ la fexe bloqué sa compte ngir nga mën a fay nag li nga xam ne mooy seeni nag fiscalité waaye nag ca RTS nag lu ki nga xam ne mooy télévision nationale Pape Alé Niang jiite ko jamono ji jot na xam le ne mësul recevoir benn yoon nag ab notification bu ñëw ci moom te ki fi nekkoon tamit di Racine Talla nee na lépp lu ci àddu ci trésor public ñu fexe ba fay lépp luñ ca yor kon nag RTS nag ñoom ñu ngi xamle rek ni déclaré na recevoir benn notification redressement fiscal jotuñu tamit susur seen euh, compte bi daana bloqué wuñ ko loolee rek ay wax la euh, kii di Racine tamit jot na xamle rek ne amul benn idée goo xam ne war nañ ci mën a redressé waa RTS ñu bañ a fañ seeni fiscalité ñu wax naka ci mandat d'arrêt international gi ñu teg ci ndoddu euh, kii di Gabriel Kane justice française bi nag ñu ngi waaj a kii di Gabriel Kane soxna si di lañ ko daal di teg information la boo xam ne média yi ñu ko fësal activiste bi jot na ko moom ci boppam jot na ko dëggal ci réseaux sociaux yi relevé na nag lu tax ñu daal di ko fas yéene teg loolee ah, ci édition te jii sax nag je ñetti fukki fa ak ñetti ci weeru juin groupe Futur Média indi na ci ab leeral mandat d'arrêt en question dafay jëm rek nag ci justice moom ak ñii di waa France lañ ah, ci suite série de plaintes yi nga xamante ni nag déposé woon nañ ko ci ex époux maanaam nga xam ne moom moo ko takkoon moom nag influenceuse waaye tamit nekk activiste journal bi xamal ñu rek ni loolee jëm na ci plainte ñu tegoon ci eh, sox boroom këram moom influenceuse bi relaaj dem rek ci wàllum garde enfant ak téye xale information bi nag dafa incité apporté indi ci ab ay plaignant koo xam ne daal ci nationalité français la dafay tuumal Gabrielle Kane ne moo jëloon doomam dossier boobu sax dafa egsi si kanamu table juge moo tax rek nag ñu fas yéene ko waaye nag mandat d'arrêt boobu ànd ceeg avocat bi nga xamante ni dañ ciy addu kon nag Gabrielle Kane buñ sukkandikoo li nu mel sax mi ngi xewee ci atum 2018 ba tey jii ginnaaw ba Gabrielle Kane daal di divorcé ak ki nga xam ne moom moo ko takkoon xibaar googee nag am benn tubaab bu ko doon tuumal ne daal Gabrielle Kane dafa sàcc xaleem doomam boobee moo waral nag dossier boobee daal di agsi ci kanamu àttikat xibaar yi dañu koy waxtaanee rek ba tey ñu wax nag ci mbiru chauffeur euh, chauffeur Fall Khoudous mooy Sénégal bi nga xamante ne rek Chine waaye dañ ko doon tóor ko méttital ba ñu def ko ci réseaux sociaux yi ambassadeur bu Chine nag nekk fii ci Sénégal jaar dina àddu ci lu nu ginnaaw sorti bi génn na ngir réagir nag ci mbir googee chauffeur Ibrahima Fall bi nga xamante ne ay chinois ñoo ko doon toroxal ci ay béton ñu tuddee ko ci diwaan ndekkal fa nga xamante ne sax la doon liggéey nekk benn bërëbu industrie chimique bu bu Sénégal ambassadeur bu Chine nag jot na remarqué vidéo gis na ne lu nu mel tegwul ci yoon ci ñaari mbokkam yooyee jóge Chine ñëw fii ci Sénégal di fa liggéey nee na nag mi ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem waaye nag mi ngi sàkku ci euh, askanu Sénégal wala nguur gi mu daal di jël matuwaayam ndaxte nag bu fekkente ne lu ñu wax loolu la document bi dañ ko dalloo niki tey sax nag ci alxamis bi gouvernement bu Chine nag jot na exhorté nag ay ressortissants ci entreprise boobee nekk Sénégal jëm ci aada ak cosaanu Sénégal bu fekkente ne bëgg nañ fi nekk ci jàmm ndaxte nag Sénégal réew la goo xamante ne ku ñëw dañu lay dalal waaye dañu bàyyi benn doomu bitim réew ñoo fi di xoqatal suñu doom yi ak yooyu ñu def mu doon loo xamante ne ñaawlu nañ ko ci képp koo xam ne def na ko dañ cee war a teg ay daan ci kawam ci manière ba ñu ko defee ci nu ne tamit moom mi ngi yokkaat ne nañ ci ubbit ab enquête gu leer ngir mën a jeexal méttital ak fitna yi nga xamante ne mi ngi ja am ci yenn ci entreprise yi nga xamante ne ñu ko jiite Sénégal wala Afrique di fa liggéey ñu faral di leen di métital waa Chine nag nee nañu Chine ak Sénégal rawatin nag Chine ak Afrique doon na ab euh, relation yoo xamante ne jamono ji bëggatuñu dara lu ci tilim li ñu bëgg rek mooy liggéey ndaxte dañoo ñëw ngir jàppale Afrique am ci moom waaye tamit Afrique am ci moom bi ay kàddu yu rafet yoo xamante ne ambassadeur bu Chine nekk fii ci Sénégal jot na ko daal di joxe euh, jëm rek nag di baalu ak tamit di sàkku rek nag nguur gi fi nekk mu bàyyi xel waaye tamit fexe ba lii nag duñ ko fi amaat te liggéey Bougane Gueye Dany daal dina réagir ginnaaw nag échec datem dem ci Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko réplique bu saf nag lak Bougane Gueye Dany tontu kii di Ousmane Sonko moom njiital mouvement gëm sa bopp nag dellu si na rek ngir tontuwaat nag eh, li wute Bassirou Diomaye Faye ak kii di Ousmane Sonko ne na lu yàggatul dara nag seen diggante féewaloo dina ci am ndaxte xam nañ ne mission bi tax ñu teg leen ci boppu réew yi mënaguñ ko jëm rek nag ay politiciens la loo xamante ne amuñu lenn loo xam ne jot nañ ko réaliser fii ci réew mi rawatina nag jafe yi nga xamante ne Sénégal ñi ngi fi ne Bougane Gueye Dany daal nee na boo moytu ñu doon yuuxoo askan wi duñ ci gis lenn loo xamante ni ah, dina leen ak ah, gënal